moo di boroom dalailul xayraati yitteem lu dul ku ñëw mu faj aajaati asalaamaaleykum chers internautes de Serigne Babacar Diop TV ñoo leen di nuyu di leen siyaar amaat mbégte bu baax a baax a baax di fa dalalaat Serigne Babacar Diop mu nuy baaxee baax yu baax yi ngir suñu wér gu yaram nu koy ñaanal gudd fan ak wér Serigne Babacar Diop noo ngi nuyu di la siyaar amaat mbégte bu baax a baax ci feggoog yow aousubillah bisimillah inna waliyallah wa ma tawfiq illa billah xaw nu ko yaa muhin wa bika mbokk internet yi ñu suivre di leen wa sahlan jërëjëf Diop am na solo Diop tey dang ñu njëkkee bi ndax gis nga li nga xam ni moo xew si mbëndum showbiz bi ak Sidi Diop nga xam ne ñii nga xam ne noo ko doon fekkee ñu si bëree war nañ ko dem si kii nga xam ne mooy Wally Seck le Faramareen Euh, Diop lu tax ngore gore do hmm. ak doyel doyal ak hmm. gëm ak kóllëre commencé tumuraan ci biir réew xam nga milieu showbiz moom c'est pas catholique li naan c'est pas catholique te hmm. ne ak politique ak làmb xoolee euh, da ci gis yu noonu ndax da nga gis mbër yu ndaw yoo xam ne suñu tàmbalee bëri kan doon lekkee nambe nga xam ne ñu ko doon may euh, bu guddee ñu dem fa lekk cere mu mm-hmm. ne ba am du du borom taaba dootu leen gis mm-hmm. nga dem ci politicien bi gis politicien boo xam ne li naan politique euh, oto bu paan la mm-hmm. ñu puus bu tàkkee duñ dugg dugg ci biir nga ñëw tam ci showbiz bi da gis tam lu mel noonu daf ciy feeñ parce que tey dangay ngay gis euh, moom li ñu ko def ngay gis waaye moom li mu def kenn du ko gis parce que dafa sentimental mm. par exemple su néewale nit doole rek parce que waale ëpp na sa waay doole mm. jël na ki newoon ci moom léegi li ñu gis rek mooy waale waale euh, daf ko or wala daf ko jaay doole mm-hmm. mais moom ana ñi ñi mu tàmbalee ndooloon mm-hmm. euh, nga xam ne euh, caméraman lañ woon yoo xam ne dañ kaan liggéey te daaw ñu ko fayeeku mm-hmm. dem nañ ba mujj bu ñu ko bëggee jot duñ ko jot dem ba mujj suñ ko seete duñ ko gis te ñooñu bi ñu commencé di ko defar loolu séntuñu woon ci woon loolu moom mu am succès moo tax ñaari ji nga côté boobu noonu day bëri ndax da ngay xool tey par exemple tey Youssou Ndour bi mu demee ba nekk le plus grand chanteur waykat yi kenn ku ci nekk soo nekkee fenn bu amee temps dafay récupéré parce que tey ñu naan Siri Diop Wally loolu Siri Diop moo ci yokkoo Wally amul lu mu ciy gagné. waaw

mais Balla soxla woon bëri Modou Lo fi ne ni tey ñu naan Sidy Diop mu euh, kii Waly te Waly rawee ko lu baree bari ci côté yu nekk loolu succès Sidy Diop la ndax fi ne boo xoolee chaque jour day mel turam Waly si turu Waly la Sidy Diop di si Waly ci lay yokkoo ci lay yokkoo d'accord donc daal hmm. loolu Sidy Sidy moo ci moo ci am bénéfice d'accord waaye Diop bu ñu ñëwaatee rek si le cas euh, le cas de Ndella Madior euh, tey jii boo déggee ki nga xam ne yà li nga xam ne mooy fauteuil présidentiel yàgg na dem ay élection donc yàgg na nekk une femme battante tey ñoo boo ko ñooy dégg si si lii nga xam ni moo moo dal ci kawam lan la lay def jóg waaw xam nga Sénégal moom euh, dañuy wax ne nit ki bu bokkee fenn fi ndax comme papaam politicien la woon mhm. pare papaam nekk na une fois ministre mhm. nekk na député mhm. autorité la woon moom tam mu jàppee boppam bourgeois nga xam ne euh, xamul lu jaadu xamul lu war euh, chaque fois arrogance lay waxee nga gis ñuy def témoignage si moom yëpp gisoo kenn koo xam ne apporté na benn apporté na ko benn soutien peut-être xëy na sax nit ñi moom mën nga leen di kar ñu fayale naa ci waaye euh, en tout cas moom ci côté comportement am du woon ko exemplaire côté wax am arrogance bu ko mm. neex wax côté mm. tam ñu ko doon liggéeyal da nga ku ko liggéey mm. da nga li ma bàyyee foofu mooy liggéeyal na man liggéeyaloo na ma trois mois quatre mois man maa dem ba xam ne kii dootuma fi dootuma fay ma dem comprendre yow mii di wax ak man sa yow journaliste bi jaar nga fa wax nga ma lu mel noonu oh, comprendre da ngaa mujj bàyyi foofu sa xaalis kon loolu lu répétitif la maanaam lu xam ne benn wax ko ñaari wax ko ay nit yu bëree ko man mi toog ci euh, ci témoin. waaw yow mi toog ni tu es témoin ak euh, tu es mhm. waaw léegi nag nit mel noonu euh, nga xam ne lu muy def rek am-am la ci ut. Mhm. dem ba nga xam ne da ngay business ay ay liir. ay bébé nga xam ne kooku. Mhm. kon amatul dara lu koy indiwaat. ci àdduna ndax nit tey bu bàyyee julli bàyyi jàng al alxuraan. bàyyi maanaam lépp loo xam ne day indi indiwaat ñu xam ne dana xelam ñëwaat. mu xam ne kat euh, àdduna bi luy jeex la jarul nekk di ci giiroo wala di yaakaar na fi la fi la mbir yam di sëdd ëllëg da ngay dem ba mujj da ngay sànku loo neex def ndax da ngay xool bi mu mujjee génne Ousmane Sonko gars yi Ousmane Sonko yi ñoo koy diaboliser te yow nga def loo xam ne moo ngi ne weñ ñu naan ay ay ay ay juróom-ñetti liir mm-hmm. faatu nañ si nga am nga am fitu mm-hmm. taxaw ak arrogance ba tey mm-hmm. mel ni si rien n'était defoo dara ko kon doy waar Euh, mos nga ko sax invité si benn télé bi ma nekk actuellement dafa gën dem plateau bi waaye ni koy yow da nga jël xale yi di ko tuddee ay Ousmane Sonko ay Macky Sall ay Sadio Mané est-ce que da ngay dóor mais dafa gedd buude génn mu guddi si mu def benn live live bi amul lu mu yàqul euh, sama nattang yi nga xam ne noonu ci fële si RDB donc arrogance bi ngay wax bi moom la ko moom la ko Sénégal yi xamee comme ni ngay wax rek mooy parfois du ñu nekk si benn univers boo xam ne du en réalité Diop amul mooy hmm. benn bourgeoisie boo xam ne tey jii ñëpp ñu nekk si langue politique bi moom la jéem dundee xamuñu sax les réalités du waaw xam nga dafa am ñoo xam ne dañoo yàgg a nekk ci kaw ba pour ñoom suuf amatul. Mm-hmm. Euh, nawlootuñu baadoolo. Mm-hmm. Euh, bàyyeetuñu xel. Mm-hmm. sax ne ay sénégalais lañ seen kër sax ci biir seen biir kër duñ fa làkk wala français lañuy làkk. français lañuy làkk seen ay doom. comprendre euh, dem nañ ba jàpp ne ñoom ñu ne sont plus sénégalais. sénégalais moom bu am lu ci ëpp beew da koy yomb léegi nag mu mel noonu euh, dina di may fitu ñuy def lu nekk tey bu dégg naa bu mosaan dem ci ministère de santé mm-hmm. astafurlah maanaam bu mosaan dem ci yenn yenn kii yenn euh, structure yi mm-hmm. bu ñëwee moom ña fa nekk deneen naan man soxla ma leen mm-hmm. nga xam ne moom balaa mu àgg jàpp ne autorité autorité la boo xam ne bu ñëwee ki ci kaw la war a waxal. warut a waxal sax ni suuf comprendre nga. comprendre naa. waaw naa Diop loolu mooy nature des Sénégal yi ñuy dem ba bew te bew mbubu la rek la. Diop hmm. eh, am na solo Diop tamit ñu ñëwaat rek sunu série bii nga xam ni mooy Babel nekk série d' actualité gis nañu ki nga xam ni mooy Binta génn na kër gi lu tax mu génn mooy eh, munul munul am doom ki nga xam ni mooy njëkkeem jaabu lii na ko. accusé na ko lu nekk ba briser mariage am te en réalité loolu moo am suñu société tey jii. waa xam nga senegal sëy fi dafa métti. Mhm. ndax booy sëy da ngay sëy njëkk yi sëy goro yi sëy wujju pertoga yi te heure boo euh, def jotee. Mhm. sa jëkkër joxul loo def. Mhm. bu ñuy xas yow la ñuy xas ñu xas sa jëkkër. say goro itam. heure soo leen teralul duñ la xas duñ xas sa jëkkër yow dañuy xas parce que dañ naan sa jëkkër jox na la nga lekk ko boo amul doom tam ñu ne dangaa jaase mënoo am doom te fekk na ñu bëri góor bi tey bu jigéen bi day sëy ak moom su mënee def dara góor gi day fekk mu am bu amul jabaram du mën a def su doom amul tam ci sëy day fekk góor gi mooy wér doom mën a am mais su wérul doom du mën a am yooyu ñu gis dafay bëri daal mais toor bi duñ jël jox koy jël jox ko jigéen ñi da nga koy dafay nekk lu yaatu ci kii. Mhm. Mhm. bañ lay jaarale mu ngi noonu mu ngi noonu. donc psychologiquement da waaw bu ko defee yooyu boo jàppee rek eh, tombeeg sa jëkkër tam. Mhm. moom war a dem faju daa mënul am doom muy jàpp na ne toor bi yow la. te moom demul sax ba xool boppam ba ñu xam ne xamal ko ne ko mën nga am doom wala mën na am doom. waaw moo tax man jigéen ñi. souvent suñu ma wooyee ci wàllu jafe-jafe am doom dama leen di wax ne leen seen jëkkër su nangul faju moom jërul ngeen may woo pour faju mm-hmm. ndax man jigéen boo xam ne bëgg nga faju mm-hmm. te sa jëkkër nangut ànd ak yow faju ci wàllu am doom man du sama wooyee tam du ma la faj. waaw ndax rëy boobu am ñu si ñun góoru Sénégal faju. waaw góor ñi mm-hmm. waaw xam nga góor ñi moom souvent damay jàpp ne parfois contrôle ñu ñu leen di diagnostiqué ci côté xool ndax mën nañu am doom am déet par exemple ñu mastur dem ba ci yeneen labo ñu ma ne da di mastur béwu mm-hmm. eh, maanaam gêne boobu daal pour man dañu am gêne dañu am leen di gêne pour ñu mën a faju quoi donc waaw waaw moo leen sonal daal mm-hmm. mais jàpp naa ne su du woon loolu nit jóg dem faju moom war naa mën a yomb waaye ñàkk bañ faju ba sa ba sa kër di di di tas loolu jar na xolaat mais sama sëriñ jigéen boo xam ne stable du ko teg fitna teg ko coono ndax ñàkk am doom ak histoire yu sew yi nga xam ne moo am si biir kër yi est-ce que loolu jigéen jàpp ëmb dana xam nga fi muy góor muy jigéen. Mm-hmm. stress. Mm-hmm. su ko góor amee. Mm-hmm. Euh, boo xoolee. du mën a euh, am érection bu baax. day yàq tam ndoxam. daf koy tax mu am dysfonctionnement. day tax tam mu gaaw a daanu. de même que góor tam de même que góor de même que jigéen aussi mhm. su fekkee dafa stressé de mën a perturber ay cycle de euh, kiyam waaw euh, nga xam ne boobaa da koy da koy mën a mën a dérégler ay cycle am mhm. mën na waral aussi euh, lu bëree bëree bëri bi nga xam ne pour mu jàpp ëmb tam dafay jafe d'accord waaw d'accord donc loolu daal su ko góor ak ko jigéen yëpp stress yooyu yëpp mën na tax ni jàpp jàppalor dooyu day jafe trop trop am na am na solo Diop Diop nu waxtaan moo di boroom dalailul xayraati yitteem lu dul ku ñëw mu faj ajaati